mel na ni yegg na léegi kon Baye Serigne Gueye président sous commission bureau ñu sàkku nga yegg si fii ci barab bi man ñoo leeral liggéey bi nga xam ne Europe jot na ko def ak fi mu toll ak yan jafe-jafe la. billahi mina shaytaani rajim wa inni u'iizuhaa bika wa surriyatahaa min shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa Touba ci kanam nooru daaray nii waa diaspora bi seen mbokkum taalibe Serigne Gueye ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen baal àq te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom boole ñu jéggal jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bi muy Serigne Alhaji Tàkko Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal di ko ziyaare bu baax a baax a baax a baax di jël sunub ziyaar ak sunub nuyoo di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxo Serigne Abibu Mbàkke Fàllilu waaye tegal ñu ko ci Serigne Abdoulahat Mbàkke moom Serigne Abibu waaye di jël nuyoo waa administration bi yépp di ko teg ci loxo Serigne Abdou Fatah Guèye mi nga xam ne wax dëgg fa yàlla ci liggéey bi ak taxawaay bi gis nañ lépp te wax dëgg yàlla yàlla rek moo tax ñu koy wax te muy sunu président di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér te yàgg taxawi liggéey bi yàgg koo jiite ak mbooleen ñi mu àndal ñëpp rek di leen wax rek ne ñi ngi siyaare waa diaspora di leen wax ne daal ñi ngi sant bu baax Serigne Abo ak ñi mu àndal ci liggéey bi di kontaan lool ci ni ñuy liggéeyee ñun ak ñoom ci relation extérieur di ziyaare Serigne Moustapha Mbacké Italie waaye nag ñi ngi jaajëfal bu baax coordination Europe parce que coordination Europe du benn jëmmu Serigne géey rek dafa am ñoo xam ne relation extérieure ñoo leen jëloon ñi ànd ak man di liggéey depuis presque un an kooku soxna Alimatu Ducré ma ma jàkkaar lool doon kenn ki nga xam ne moom lañ toftaloon ci man waaye ak Serigne Abdou Salam Faye ma lee yi nga xam ne moo jiite Allemagne ñi ànd di liggéey liggéey bu rafet waaye nag ak coordinateur Europe bi yëpp nag ndax ñun dañoo am benn panel boo xam ne fa mbooleem coordinateur yi nekk Europe nekk ñi bokk di liggéey di wax ne li ñu liggéey lépp sax duñ ko mën a wax waaye danañ ci tënk dara ndax gis ngeen jotaay bi ni demee comme dañ ñoo xoj moom li fi jot jàppandi rek loolu la ñuy wax muy sous commission Europe ginnaaw bu mu juddoo ci avril 2018 euh, màgg na ba ci janvier deux mille dix neuf ñi renouvelé waat ko mu taxawaat di wéyal liggéeyam ñi am ay modification yuñ ci def loolu nag tax na sous commission bi eh, mi ngi liggéey ci coordinateur yëpp ñi fexe ba am bureau li ëpp ci coordinateur yi taxawal nañ bureau bureau boobu muy réew mu nekk am na bureau boppam lépp loo xam ne dafa jëm ca réew mooma foofa la koy waxtaanee suñ ci déggoo ci loo xam ne dañ ko tënk loolu la ñuy jël jébbal ko relation extérieure su dee loo xam ne dañ ko cee war a yokk fan yii nga xam ne génn nañ ko it su ngeen xoolee da ngeen gis ne benn comme sous commission bu judd boo xam ne su commission bu am solo la muy sous commission finance bu diaspora muy sous commission boo xam ne sëñ Modou Diouf mi ma fekkoon fii muy toog maa ngi koy nuyu di nuyu waa Italie yëpp waa Espagne waaye taxawaayam tamit daf ci am solo ndax lu bëree bari diaspora bi ñu ngi ko doon soxla rawatina sous commission Europe bi continent Europe waaye du ñu woon xam nan la ñuy def ba mën ko am te ku ne xam na ni liggéey bi bu ñu la liggéeyloo faw ñu jox la ngànnaay boo ko mën a saytoo ndax gis ngeen tànt bii ñu nekk ak li muy am am solo gis ngeen banderole yi fi nekk ak tableau yi fi nekk ni mu ko yokkee taar kon waa Europe yëpp dañ doon laaj fépp foo xam ne am nañ fa ndaje ñi am lu taaral seen jataay am lu ko oh, firndeel kon sëñ Bay saa yu jeexee rek ñun pare nañ pour joxe micro yi amuñu benn problème bu ko defee loolu kon doon na mbir mu am solo moo xam ne eh, continent Europe ñu ngi ko doon laaj su commission bu finance judd na dina ko yombal kon ñun dañuy wax ne daal wax dëgg yàlla ñu ngi doon liggéey. maa ngi nuyu sama patron eh, loolu jàllee nag eh, ñu doon leeral tuuti rek ci wàllu. sous commission finance li taxoon ñu ñu li taxoon ñu ko ñu ubbi ko parce que sous finance euh, réew yu baree baree baree baree bare dañuy am yu ñuy wax ñu ko sàkku ñu ko bëgg léeg kenn man man lay woo léeg woo si ëboo léeg-léeg mu woo keneen ak keneen ak keneen te loolu lépp bu ñu ko wooyee nan lañuy ñuy def mooy di jéem a jotante ci téléphone di jéem a waxtaan te loola waxtaanul tax mu sotti ñu ne woon nag nañ sàkk ci biir finance ci biir euh, diaspora bi benn sous commission finance boo xam ne ni bépp réew boo xam ne dafa nekk ci àdduna bi te euh, am soxla su ko waxtaanee jëm réewam ba ca dara daf ñu koy indil ñu ko rafetloo ñu waxtaanee ko ci suñ suñ sous commission ba ba tënk ko buñ ko finance bu mag bi nga xamante ni moo nekk ci Sénégal bu boobaa du jar discussion parce que day fekk ñu waxtaanee ko ba tënk ko. ba nosu na ndax mbir yi Touba ca kanam dañuy wax ne dëgg la xaalis jafe naa génne waaye nag lu nosu lu moo ci jafe lu ndax lu tuuti dafay day gàllankoor lu bari ndax boo jëlee dara jaarale woo ko fa nga war a jaarale képp boo àggee finance dañ koy recette loolu nag moo waraloon ñu jël place boobu waxtaan ci ñun ci suñ biir ba ñëpp maase ci képp koo xam ne da am soxla waxtaane ko ci sam réew ba tëngu ko boo ko tënkee nga indil nu ko loolu tam ñu yóbbu ko ci sa su suñ su commission waxtaane ko foofa ba tënk ko ba xam nan nan lañ koy joxe waa finance bu mag ba bu boobaa day yomb lool ñu daal koy wéyal noonu la ñuy doxale su commission bi su commission bi doonul loo xamante ne nii dañuy doxal suñ bopp wala déedéet su commission bi lépp loo xamante ne nii luñ soxla la rek lu waa diaspora bi soxla foofa lañ koy waxtaane waaye nag waxtaan bi yëpp lañ ci jublu mooy nos ko ba mu tegee yoon ba buñ ko yóbboo ci finance bu mag ba du am benn rëq-rëq te daañu ko nangu te xam ñëpp daañu xam ne jaar na lii rek moo waral sous commission bi ñu tàmbale nañ ko nag fas yéene nañoo déglu ta ñëpp ñoo xam ne réew yi juróom benn fukki réew yi nga xamante ni ak lu topp nekk nañ ci diaspora bi kenn képp koo xamante ni am nga benn programme wala am nga benn soxla boo xam ne waras na koo def waxtaane ko ci sam réew soo ko waxtaanee ba mu tegu ci yoon rek boo nu ko joxee dañ ko dugal foofa waxtaane ko fas yéene mu yomb ñu jàllale ko ba la nga ca war a def nga def ko ca doo am rëq-rëq loolu mooy li comme ni ko ki jiitu waxee léegi muy sëñ euh, Alaaj Sëñ Gueye ci ci ci photo yi mu gis fii ak place bi ni mu demee yëpp ñu mën koo teg ci yoon ba wéral ko ba nga xamante ni ñëpp dañ mën a jariñu ndax Touba ci kanam loolu rek mooy yitte nit ñi daal mooy suñu yitte fexe ba kenn bañ a am lu ko jaaxal kenn bañ a am lu ko naqare ci réew walla ñu bañ a benn sooxe bañ ci am daal lépp doxandoo di do